asalaamaaleykum mbokk yi man la Mister TQG. su nawet bi jubsee xel yëpp dem si terrasse bi seen tey nag dinaa tontu si benn laaj ana lan moo mën a aar seen tabax si ndoxu taw bi déedéet du ma leen tontu dem koy wan topp leen. damay tàmbalee jël sama bac en bois def si trou yu bari comme ni ngeen ko gisee su ma paree dama si sotti ndox ngeen ngeen gis nu muy senne li si topp mooy. jël sama coloflex di peinture d'étanchéité bu colorado diw ko si biir baag bi ba mu fat su ko defee ndox mi du am fu muy jaar bay senn ma xaar tuuti bàyyi peinture coloflex bi jàpp bu baax maanaam ba mu wow si diiru 6 ba 8 heures de temps léegi dañuy dellu sottiwaat ci ndox bu bari xool lum ñu jox ñoo ko gisandoo bi la yoon sennul bant bi sax tooyul mbokk yi lii du luxus du ay naxe nii la Coloflex bu Colorado di def si seeni terrasse kon mbokk yi ñoo ko gisandoo ak seen peinture Coloflex dara dootul senn moo baax ci seen terrasse si diggante ñaari bâtiment teg si dafay aar seen tabax. Coloflex peinture d'étanchéité et de protection pour vos façades terrasses et tuiles disponible chez TQG Touba Quincaillerie Générale TQG Cité Keur Damel extension rond-point 26 Parcelles Assainies représentant exclusif de la marque Colorado disponible partout au Sénégal téléphone 33 879 28 28 يالله يا من لا إله غيره asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kenkaayeri daaru minam waa kër sëñ Abdou Akim Mbàkke moo ngi fii ci Touba tableau hôpital Matlabul Fawzeyni lépp lu ngeen aajo woo mu aju ci wàllu quincaillerie général lu ci mel ni plomberie ak sanitaire matériaux de construction lu ci mel ni ciment fer ak béton matériel électricité ak menuiserie ba si étanchéité adresse bi benn la quincaillerie Touba Daaru Minam yéen ñu nekk bitim réew te bëgg ku leen taxawul seenu bu tabax adresse bi benn la da ngeen fa fekk gérant bi di Serigne Mohamed Lo mu ànd ak ay ndawam yu xereñ taxawul leen ci lépp loo xamante ni moom ngeen aajowoo kenkaayri daaru minam mooy ñaanal xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala sunu kem kàttan ci xéewal yu bari yum ñu jox faggul nu ko laata nuy ñëw bi nu ñëwee ba fi mu ne nii it saa su nekk mu di ca naddi di nu jox subhanahu wa taala mënunu koo sant lépp di julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa di bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di fàttalante gannaaw bu nu ndokkeelee jullit yépp ci weer wi nu nekk te di ci séentu bis bu mag a mag a mag mag bis boobu nag euh, lamboo na ci biiram ay jaamu yàlla yu bari ndax benn bu baax bu nekk bu ci sa bët tegee ak bu ci sa bët tegewut ma nga ànd ak yu bari yu mel ni moom di ay bokkam yoo xam ne mënuñoo tàggoo waaye foo gisee bu baax it lu baax saa boo ko gisee gis ca benn na la wóor ne ponkal mu mag mu ngi taxaw jàkkaarloo ak moom fas yéene mu tuxu fa moom bu baax ba mu tuxoo fa moom mu sanc fa yàlla nañu ci yàlla musal bis boobu yi mu àndal ci yu baax ràññiku na ca lool jox nit ki mu lekk ràññiku na ca lool gëj a gise ak sa mbokk jóg xam fa mu dal nga seeti ko jokku mbokk waaye gëj a gis nit ndax daa wéradi woon mu jóg seete ko seete ko wéradi it daf ciy am lu bari waaye des na ci defare it euh, ñoo xam ne seen diggante neexewutoon noona te sorewoon nañ ci sore foofu dajale leen benn barab bis bi rek moo ko man am na ci waaye nag daf ciy tàmbalee fés ku jàkkaarloo ak ñoom di am noon te day yàq lu baax fu mu ko fekk yàq ko muy njistal yu baax yooyu yépp nag njistal danaan xoñeet fas yéene digg dox diggante nit ki ak yu baax yooyu yépp du ko du du yàqu-yàqu ba nag nit ki mënagu koo xam léegi yàq-yàqu njistal nit mënagu koo xam léegi day dem ba defee ne lépp baax na rek waaye bis bu ca tegee bëtam dana xam ne lépp baaxutoon ndax njistal moo ko xañ lu baax lañ ko naroon a amee mu mel ne yu baax yooyu yëpp ànd ak bis bi euh, bu ca sell bu nekk dëgg-dëgg war na caa mën a dem aljana te ñu bari loolu lañ cey wut yool ba leen yóbbu aljana ëllëg waaye bokk yi aljana moomu li tax saa bu nit jógee bëgg a def lu baax waxuma yu baax noonu bu yu baax yépp jóg taxaw fas yéene dox digganteem ak moom la muy tekki rek mooy neexut dem fu jafe dem la euh, dem fa nag jar na lu nekk ndax benn ca ya ñu wax ne moo fa am benn bu ca nekk ku bëgg lu baax mënoo koo bañ euh, ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee moom mi ko yàlla wanoon wan ko safaanam ba Eh, mujj na bëggatu nelaw guddi bëggatu sa nelaw bëccëg ndax la tax mu wax ko la tax mu def noonu mooy moom moo jàkkaarloog gaa yi ne leen fee ma gis dey amul kenn ku war a naagu ci yéen kook danaan li ma def doy na aljanna laa jëm ñu ne ko déet xanaa bokkoo ci mu ne maay digg ba man daal danaa def li ma war a def lépp te xaar nag yéen ma dee suñu borom ginnaaw nag moo toll foofu ak nam xejje woon ci suñu borom subhanahu wa taala ah sakkantumaak ñi ci des ñëpp kon du fa kenn di naagu naan fa laa jëm ndax li ma def doy na ci lu baax njistal man na koo xañ nit ki aljanna nag yafa yàlla dëxëñ e, dafa mel ni diplôme yi nit ñi di wut wala ku ami diplôme ba naa fi bëgg wut ab liggéey ku ne xam na ni diplôme bala ko kenn wut da nga jaar ci compo jaar ci examen ñu laaj la ay laaj nga tontu ca ci bind walla ci wax toog nag di xaar ba xam danga bokk ci ñii am wala da nga bokk ci ñi dul am bari na ñooñ buñ ñu ca jëmee dañ koy waajal waajtaay moom danañ jàng guddi jàng bëccëg waaye du tee kuñ yaakaar dañ dem ci woon ñaanal ma ma am ca ndam du ko tax a naagu de ndax lu mu góor góor dana am ñu ko dàq jàng fopp gën koo neexum xel gën koo bëgg diplôme bi waaye day dalit euh, koo xam ne am na diplôme ba noppi war a dem wuti liggéey moom li ñuy wax interview ñëwal ñu wax ak yow bala ñu laa laaj kayit yi nga am yom doon loolu it bari nañu koy waajal naa ñaanal leen ma su ma demee am fa ndam wóoragu ko xam na ne kayit yi mu yor moom war naa mën a liggéey fu bari am ca lu nekk ci teraanga waaye fekk interview bi àggagul wóola wóoragu ko ba xam dana fa am liggéeyam déet adduna nag noonu la ko suñu borom binde ci jullit yi daf ñu koy defal ay composition ak i examen kenn ku nekk nag dox wutali këru ëllëga muy aljanna muy fu bakkane foo xam ne la fa nekk ni ko yónente bu waxee bët mosu koo teg bët te it bët du ko teg bët ca àggu ca ndax mënuñu la ko misaal ci yi nga xamagoon mënuñu su la ko wax ci noppi nga di ko déglu di dégg la fa nekk ci yi nga xamagoon te di ko dégg waxuñ ci nag xel di ko xalaat waaye teewul nag jullit yi la ko fa yàlla tegal ngir ñu xewloo ko bànneexa ca bànneexu ca bànneexam yu bari ya yu neexam yu bari ya ndax la jëkk di bànneex rek mooy aljanna amul kañaan li ñuy wax kañaan ne amu fa jàq amu fa rët amu fa tiit amu fa nit ñi it duñ ëppante nga naan kii ponkal la kii xiibon la di ko ñee ponkaleem gi ndax kañaan moom foo ko fekk ñeetaane moo koy lal euh, teyit li ci gën a yéeme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale kenn du dema dem ba ne bañ naan ak a neexoonub gis mooy amoon na ko mooy néew doole ci gis kon léegi du fa dalee lu mu mas a ne jàkk de yëkkatiku kon néew doole amu fa ci doole yaram waaye bu masaan yor gamelub soow wala meew da ko naan ci mu jeex mënatu ko léegi kon tële ci wàllu lekk yëgatut bàndeex bi muy lekke waaye dalul waa du dal waa aljanna yàlla ñu ci yàlla boole waa aljanna moom safaan bay dal sawara safaan bay dal waa sawara moom la yàlla indi ci alquran waaye dañ cay déggee a safaana mooy aljanna kullama nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan gayraha li yaduqu alazab safaan ba mooy saa bu nit demee ba tàmbalee tayal ndax lépp neex na yàlla def koy roo ko roofaat yaram wu bees peq wu muy gën a yëgee bànneex bi kon mbokk foofa aljanna dem fa yombut waaye nag am na ay yoon yoo xam ne ku ca jaar moom sax wërta rafet njort waaye nit ñi war nañoo mën a roy ca kooka ne kii de fi mu jaar mën naa am yaakaar mënees naa am yaakaar ci moom ba ci jiitu mbindum sëriñ bi la sëriñ bi moo wax ak ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo dese kàttan ñoo ko am sax agun ci wàll gépp ñoo neexi gët ñoo la seeni làmmiñ di yëg bànneexub lekk seen yaram di yëg bànneexu yaram mu ne su ngeen bëggee dem aljanna ëllëg te ñàkka dem aljanna mooy gàcceek ëllëg yàlla nuñu ci yàlla musal dee leen xool fi ngeen di teg seen tànk lu ngeen di def na ngeen xam lu ca diine wax yaa ayyuha shubaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal waaye nag ba muy wax ak mag ndaw lii mu ngi ci tashawudu lii may bëgg a wax ni mi ngi ci diiwaanu silkil jawahir diiwaanu silkil jawahir yetti bayit la yoo xam ne ku ca tënku njistal du ko yàqal laa tu'thiran yaa saaxibi hawaaka wa nafsa wa dunya ala mawlaaka rikk waay bul fab sa bànneexu bànneexub bakkan ak sa bànneexub àdduna kese kese kese jiital ko ci sa ndigalul boroom da ngay jiital sa ndigalul boroom kay def lam la sant ba noppi bu jeexee loo cay teg teg ko ca bu yàlla taxee moom gisal du ci am aw yoon bay ba bakkan dina daan wala àdduna dina daan fa qaddiman amral ilaahi samadi ala siwaahu li tafuuza bi wa man yuqaddim amra duniyaahu ala amri ilahihi fa naw nawkuhu jalaa képp koo xam ne day seet nii laa ko sentire nii laa ko gise lii moo dal saam xel lii la ko diw ñoom daan defe kese kese kese kese kese nee na bay wëri ko ànd ku tàggoog sagoom dëgg dëgg dëgg bul seet ku yanu ay ku yor ay sagar wala mu yor ay xott ak xottaat waaye tegal loxo ca waajooja rek xam ne kii moom mooy dof bu doppooral moom dof bu doppooral bu gëmmentu buy nelaw yàlla nañ ci yàlla musal moo tax bu ñuy séentu bis bi nga xam ne moom la ñuy séentu ngistal mu ne ca lool fan yi yëpp ñoo ngi dégg ku nekk naan dama ñëwoon siyaar si ku baax ki indi sama barkeelo bokk yi am na xabaar bopp ku mu àgg ci yow ñu baree bari ni yow jot nañ ko waaw su fekkee saa bu ñëwee indi barkeeloom ñëpp yëg ko xam nam toll ñu wane ko léegi su bëggee fayu ku muy fayu xanaa wëtt seenu ak pay ci yàlla de moom ndax yàlla moom li bëgg ku koy jëfe mooy nga seeral ko ko moom képp nga xam ne ndeyjoor bi koy joxe ci misaal càmmooy du ko yëg bu yàlla taxee waaye gis nañ ca it koo xam ne day togg ay dab mu ne wereet mu ne lii lépp maa ko togg maa ko barkeeloo ci nangam ji magal gi bas na ko tudd waaye bokk yi ci suñuy aada ñun am na ñoo xam ne ndab la ñam wa def ndab ñam wa ca nekk ci biir ndab la am na ñoom bu ko nit bu keneen xasee teg bët duñ ko nangoo lekk te ñoo yey ndax gannaaw ubbi nañ ko ci ngelaw li ngelaw li upp ko ay yoxo laal ko yoo xam ne xamu fu ay yoxo yoxo nit moom du ko soxla waxantuma ak yàlla yàlla moom lu nit soxla wut waxaale wuñ ko moom moom mi nga xam ne moom euh, inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba lu set bëcc ak cat fa suñu boroom nag mooy loo xam ne moom képp moom daal nga ko seereel kon njistal dana gàññ gàññaaral ci bis bi ñuy séentu yàlla na ko fi yàlla yamale ndax kat junju naa ko ci tàmbali bi fu nit jóg bëgg defee lu baax kese kese safaan ba jóg taxawu ko te safaan ba nag naka jekk moo da ëpp doole fi toll nii ñàkk gëm yàlla moo fi jiitu gëm yàlla te booba bi fi mu toll nii gëm yàlla mu sëggut a daaneel ñàkk gëm yàlla da koy daaneel fi barab mu songat ko feneen rek moo tax kenn ku nekk bu fexee ba ak gëmam ëpp doole fa moom safaan ba ci pas-pasam ci ay jëfam ak i waxam bu ko kenn ku nekk defee doonte ñàkk gëm yàlla moom mu ne soo néewal doole ndax yàllaa ko jubloo noonu ku nekk bu fexee ba wàllam baax rek léppay baax moo tax nit ku wërta def lenn lu mu tegut lu mu xamul mu ko teg mën ngaa bañ a xam loo ci amee waaye xamal fa ko teg fu mu doon kon gistal tudd naa ko bari na ay bokk génne ab enveloppe ci kanam mbooloo mi ñu filmer ko mu ne moo ko joxe daan na jërul ñuy wax lu mu doon wax na ko ba noppi ginnaaw jërul ñuy wax lu mu doon moom wax na ko ba noppi moom daane eh, lii sax da du yoon wu njëkk bi naka jekk daanaa ko def am na ci ñoo xam ne nañ ca waroo mooy dañ naan lottal naa ci nangam ci jur gu gudd gi gi ci diggante bi ak gu gàtt gi ba sax defar naa ci ay caabi kaccax defar ci ay sombi yoo xam ne bu ci ne def naa ci lii def ca laa ba mu doon sombi boo xam ne yombul ndongo nag mu ne loolu lépp def naa ko ci léegi su ëllëgee bu bëggee tàllal ku ko fay kan moo koy fay yàlla nee na woon yonent bi solo yàlla yonent bi nee na yàlla nee na bu ëllëgee nit dana taxawal yàlla ne ko yàlla fay ma mu ne ko lu ma la ameel mu ne ko daw mu ne guddi ndax julli ko bari mu ne ko loo ci jublu woon mu ne ko sa jëmm ji yàlla ne ko waaw lu ko yóbboon ca mbedd ma ak ca rajo ya na moom day fanaanee taxaw loolu nga ci bëgg nda am nga ko ca mu jeex am ku ne ko dama daan togg rek di joxe rek sama loxo sax dawuma ko mar ndax su ma ko maree aw des laa jox nit ñi te bëgguma leen jox aw des yàlla ne loolu moom damay woo ñi ma daan liggéeyal ci yéen ñu wax lañ la nga ci jublu woon lu mu doon du ma la ko laaj al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun ñam doon liggéeyal ne ko ah wax dëgg yàlla nag day ma ngay tàmbalee bala nga togg moom da ngay am li ngay togg ba noppi daana wax ne ren bëgg na maa togg nangam benn su ko dee def ak su ko dul def lépp dana ko wax moom ñëpp dégg ko ñi nga xam ne soxla nañ loolu tàmbalee laajte fu këram nekk su noppee fa ñu koy toggee amul segg jaxasoo ba dana fa gàññ gàññaaral xoolante ba na fa gàññ ñenn nañ jëlante fa ay numéro téléphone ñenn nañ joxante fa ay rendez suñ noppee tëgg fecc ba doyal door a yàq wala ñu yàq fecc door a séddale waaw suñ noppee nag kenn ku nekk bu lay yeewee day taxaw ci mbedd ma ku génn mu tàll la aw kayit ku mu joxu kayit nga ne pat su beneen nee du la joxu kayit loolu dama am jublu na ko ci moom yàlla ne ko loolu ko ci ñi di ko waxtaanee rek nga ci jublu ko ci jeex na nag bokk yi dañoo jëm foo xam ne fii dara lu baax du fa doy sëñ bu mag bi moo bind gannaaw bu yàlla waxee ne bu leen néeg ba dëgmal fii nga xam ne kenn du ko dëgmal dëpp nga naan yàlla may ma may ma nangami minute nangami waxtu déedéet loolu alxuraan wax sëñ bi nag ne ña nga fa xam ñëpp génnewu ci kenn koo ci woowoon tey lam lay wax mooy del si war àdduna si ba def fi lu baax kepp ak lu mu tuuti tuuti kon bokk amagun xéewalu nekk fi nekkeele fi dara waru la raw ci lu baax loo xam ne da koy bàyyi mu dem noonu ci neen rawati nag loo xam ne day dem day ñëw ren ak déwén moo tax la cay wor nit dana ca gàññ gàññaaral defe ne def nga lu kenn mës sa def te fekk ñu bare nga koy def te kenn xamu ko waaye ngand ngand lu itam di sutante ak say moroom danañ xam ne du ma seen moroom ndax ren ji dinaa leen ko wan ci màggal gi teen ko wan yàlla rek te bokk yi kuy rëy rëy la ku nekk yonent bi neen yàlla ngay dëkk bëre ndax moo ko moom te nag ku bëgg a bëreeg yàlla da génn suufam si ak asamaan si la tiim wuti foo taxaw soo ko def rek li nga ko tooñ tooñar bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ëllëg yowmal qiyaama dañuy indi jëfi doomu aadama yépp def leen jëmm yuy dox benn muy yuy dox yu tuutaan yi ay sànq la ñu ko melantaañ wala mu def leen ay garab yu taxaw di dund te duñ te duñ dem ak dikk daan na nag lii jëfi waajee dama bëgg ngeen xoolal ma ci li ma moom fu ci tampon boo xam ne adresse boo xam ne ci man képp la jëm si ngeen jox ma ko ma teg ko fii maa ko moom maa koy fay bu dee téeméer la bu ñu sa jëlee juróom yoo xam ne gis nañ ko tampon bu ak adresse bi waaye na yàllaa ko moom ñu tegal ko ko mu ne juróom-ñeent fukki yeeg juróom-ñeent moom na wuti fu mu ko yóbbu man soxlawu ma ko lii laa ci moom te maandu mi ngi mi si yem ci li moom jël li nga moom yem ca la ca des lu muy doon mattum sawar doon yóbbu leen ko sawar wax yonent bi sallallahu alayhi moo tax sëñ bu mag bi ne ku yaakaar dem aljanna ëllëg na wut ay lay yu ko ko yàlla di defale ndax kat aljanna nañ ko waxe amul kenn ku fa jëfam mën a yóbbu yonent bi moo ko wax ku bëgg ku yaakaar aljanna ëllëg nay def lu muy def na ko teg tànkam fa ko yonent bi tegoon te moom ñu gise ko ci moom mu def ko dal ne nag teg sa tànk fa ko yonent bi tegoon sallallahu alayhi wa sallam ci ngay amee li nga bëgg waaye lu ko nit mooy lu mu néew néew dugg ci ak lëndëm goo xam ne fam ko koy yóbbu ëllëg mooy fuy fii rek yàlla na nu ci yàlla musal moo tax bis yu ni mel ngistal mucc ca néew na lool ndax dangay ngay dégg nit ñi tëll rek ñu ne sama waajaa ngi nii ak a neex dalal ci màggal gi lam defoon na fur dem moom itam mu yëg ko daal di geesu ne ah nañ ko fekkee déwén rek danga xam ne déwén lay daq ndax sëñ bi tànk kanam rek la yor wa rubbama ibadatin kathira qad afsadatha lahdatun xaqira loolu wax sëñ Tuubaa la nit def na ba tey ba mu doon ab jóor ëllëg bu koy xaar war a peese diis la gann ñëpp ñee ko ñu ne ko moom jur bee gisagu ak guñ ci foofu waaye dañ ko koy wan ci àdduna mu gis ko yaa fi man li nga man ci magal kenn mënu ko mu ne ah <laughs> ñu de taxu ñoo am solo dañ koy sant sëriñ bi rek waaye déwén lay dàq ndax ren moom budget ba ma génne woon sax yàlla daa dogal ginnaaw bi waat naa ci dara waaye ren laa ko déwén moom dama bëgg du ma bert léegi nag sëriñ bi nen na wuti keneen ku koy fay ku dul yàlla donte joxe naw ñam fexe na ba nit ñi jokk seen ak bokk ndax daje nañ fa ci balam defar nañ fa ak bokk bu jaxasoo woon ñu buggoon gisante gisante nañ fa ñu waroon a jarante jare ñeneen nañ fa te mënu ñëw wërante jasa dajale bari na ci yu baax waaye nag ngistal mucc ci moom lu jafe-jafe la kon boog ginnaaw ngistal day taxaw taswiir taxaw taswiir mooy loo xam ne ni nga koy wanee ak lañ ci jublu du mooy dóor dóor waaye xuruur defe ne mi ngi dox te doxut waaye kibriya ngand ngandlu te loolu moom yonent bi nee na ku ci dugg doo ci génn ndax yàlla nga dëkk bëri te booy bëri yàlla boo ko bëggut tooñ toññal bi ko da génn suufam si moo tax dem aljanna ëllëg yàlla na ko yàlla defal waaye lu jafe la ndax ay gàllankoor yi kese la moom si bopp moo bind na moom sëñ bu mag bi ne yoon yi jëm aljanna ay pakk kese la pakk mooy luy teqatal nit bu ko téqatul ci tànkamit jam ko nit dégg wala pont dana ko xoolloo ay jëfam wala mu gistalloo ko wala mu dóorloo ko nit ñi wala mu waxloo ko lu dëgg su boobaa nag ku ne mën na am yaakaar ci màggalam ba mu des moom waaye nee na yoon yi jëm sawara moom daa neex lool lu la neex ngay dégg lu la neex ngay gis di cëpp-cëppi ba dugg sawar moom sax misaaloon na ko ci xew wu mag wu amoon jareem daay dégg rujux rujux ci biir dëkk bi mu ne nañ nemmee ko ba xam lu mu ñu ne ko géew la boo xam ne day dañuy tëgg ñey tëgg nag yor nañ yetti xeeti tëggin am na ci tëgg ku ñuy tëgg koo xam ne danaan ñëw leen gaa yi sawara yi ñëw leen moom lay wootee ka ca des fellu feelu ko ni yéen yi jot a ñëw waaw leen góor keneen feelu ko ne yéen ñi jot a ñëw ak ñi ñëwagut yéen ñi jot a ñëw yéen lu ngeen di xaar ci dugg ci géew bi bu ñu duggee ci géew bi nag kenn ka leen di feelu ñoom ñëpp mooy dugg leen torox dugg leen torox kay mujj la muy tëgg moom mooy alku ngeen alku ngeen alku ngeen nee na ñuy ànd yi fëndax fëndax ba dugg sawar moo tax yoon yi jëm aljaan na ay pakk kese moo ko lal faw nit ki xeex bakkanam ba mucc ci njëstal rawatina lu baax lu ni mel luy ñëw fexe ba mucc ci taswiir di wane loo xam ne bokkut ak nam deme ak lañ nga ca jublu di njistal di wor di nax sa bopp ak ngand ngandutu yàlla nañu yàlla dimbali ba nu fekkee ko ak jàmm agsi na ba noppi sax waaye yàlla nañ ko weesu ak jàmm te yàlla musal ñu ci seytaane ki pakkam bu ñuy dund daal yàlla na ñu yàlla dundal ci gëm yàlla gu mat sëkk bu ñuy fii bàyyi ko yàlla na ñu yàlla dimbale ba ba ñu suñu pas-pas fekkoon mu nekk ci biir diina lislaam ñii ñëw ñëpp yàlla na leen yàlla indi ci jàmm ñu fekk fi ñu fi fekk ci jàmm ñu bokk defe ko niñ ko santaane te ñu delluwaat ci jàmm ak salaam te fekkaat ñu fi ci jàmm ak salaam bokk yi nag li tax moom lay moom laa moom laa doon mujje aljanna mata wut bi eh, ma doon mujje mooy àdduna lu ci nit neex la neex la àdduna ci gis-gisu nit ñi am na dëkkuwaay yu baax am na lekk gu baax mi ngi denc lu bari loo xam ne ñëpp ko xam tam cay dimbale nit ñi ba ñëpp xam ko it léeg-léeg mu nelaw su nelawee moom fàtte na lépp xamatu luy dox ci néegam sax ba muy fanaan waxuma laa lay xew ci biir kër ga waaye aljana moom amul nelaw li tax amul nelaw mooy nelaw daa niroog dee dee gu ndaw la te aljanna amatul dee yàlla na nu ci yàlla tàbbal tam yeex nag yaxfirullahu lana wa li saa'iril muslimina amin mbokk yi man su nawet bi jubsee xel yëpp dem si terrasse bi tey nag dinaa tontu si benn laaj ana lan moo mën a aar seen tabax si ndoxu taw bi déedéet du ma tontu dam leen koy wan topp leen damay tàmbale jël sama bac en bois def ci trou yu bari comme ni ngeen ko gisee su ma paree dama ci sotti ndox ngeen ngeen gis nu muy senne li ci topp mooy jël sama Colorflex di peinture d'étanchéité bu Colorado diw ko ci biir bac bi ba mu fat su ko defee ndox mi du am fu muy jaar bay senn ma xaar tuuti bàyyi peinture coloflex bi jàpp bu baax maanaam ba mu wow ci diiru 6 ba 8 heures de léegi dañuy dellu sottiwaat ci ndox bu bari xollum ñu jox ñoo ko gisandoo bi la yoon sennul bant bi sax tooyul mbokk yi lii du luxus du ay naxe nii la coloflex bu Colorado di def ci seeni teraas kon mbokk yi ñoo ko gisandoo ak seen peinture coloflex dara dootul senn moo baax si seen terrasse si diggante ñaari bâtiment teg si dafay aar seen tabax. Coloflex peinture d'étanchéité et de protection pour vos façades terrasses et tuiles disponible chez TQG Touba Quincaillerie Générale TQG cité Keur Damel extension vingt point par Parcelles Assainies représentant exclusif de la marque Colorado disponible partout au Sénégal téléphone 33 879 28 28 yallaahu yaa man laa ilaaha xayruhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kenkaayeri daaru minam waa kër sëñ Abdou Akim Mbacke moo ngi fii ci Touba tableau hôpital Matlaboul Fawzeyni lépp lu ngeen aajo woo mu aju ci wàllu quincaillerie générale lu ci mel ni plomberie ak sanitaire matériaux de construction lu ci mel ni ciment fer ak béton matériel électricité ak menuiserie ba si étanchéité adresse bi benn la quincaillerie Touba Darou Minam yéen ñu nekk bitim réew te bëgg ku leen taxawul seen seenu tabax adresse bi benn la dangeen fa fekk gérant bi di Serigne Mohamed Lo mu ànd ak ay ndawam yu xereñ taxawul leen ci lépp loo xamante ni moom ngeen aajowoo kenkaayri daaru mi nam mooy ñaanal xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér